ah euh, juge bi nga xamante ni mooy Aïssata Diallo ba euh, Ngoné lu mu ñàkk a euh, signé. mbir mi moo ko gisee. waaw bu noo signé ci loo xam ne décidé woo ko moom kañ li mu wax. Hmm. bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam moom mooy les ko hmm. li mu wax lu leer la. Hmm. joxewul. signé léegi nag li ñu ci wax mooy. moom ëllëgam mi ngi ci loxo ministre de la justice. li mu nangul signé en li mu nangul signé nag moom la engage bu nekk li ngay signé. fii keroog lañ leen wax signé leen ngeen ne du ngeen signé. est ce yoon may baal signé boobu est ce que may nag ko. ah mais signature signature la rek. Mhm. li ko yoon may li xam mhm. li ko yoon may xam na ko. Mhm. bu fekkee tam dafa am fit ba jël responsabilité xam na ne dafa jël responsabilité am nekk juge bu njëkk jël responsabilité am. juge tam démissionné na fii ci magistrature. lan la ko ci yoon fekkee tey ñu ngi lay wax naan ay. soora mi ngi dépendre ci loxo ministre de la justice. Mhm. nañu xaar ba xam na lañ koy def. juge Sabassy yoo xam ne décision. Mhm. ñu yónnee égage foofu. Mhm. commencé wax procédure bi tàmbali na. xam nga ba tey xam nga la moo ci la moo euh, la lan lay terminer. léegi nañu xaar loolu. nañu xaar loolu euh, en tout cas mi ngi noonu mais mais loolu dafa mel ne jaxaw mais nag comme ministre de l' intérieur euh, ministre de la justice moom mooy moom mooy moom mooy ministre tutelam est ce que gisoon ni loxoom da cee laal ak loxo ko na cee laale. Mm. fii lépp lu am ci décision yu ñu jox bi dafa rax politique. rax mm-hmm. politique moo tax juste sabas ne delloo leen kii. Mm-hmm. réintégré leen ko. ci mm-hmm. fichier électoral bi ñu bañ. bu raxul woon politique dañu koy bàyyi réintégré ko mu dem lu waaye am jël. lax rax politique. moo tax ñu andiwaat mbir mi fii ci cour suprême. ñu nekk ñu jël ko yóbbuwaat ko ci tribunal bu Dakar. bu fekkee dañ ko bàyyi ci ay texte ak ay règlement. ci ci xam-xamu yoon ak yooyu. dañuy bàyyi yoon def liggéeyam. Hmm. da nga jàpp ndax yoon deful liggéeyam ci mbir mi. waxuma la yoon deful liggéeyam mais dafa lalu ci wàllum politique loolu laa la wax yoon moom ñee def seen liggéey def seen liggéey ba ma tax nga a signé waaw mais naan joxe nañ décision bi yóbbu nañ ko tribunal hmm. lépp xam la pour hmm. tàddeel mbir mi parce que booy procédure ba leen waxee jox leen Ousmane Sonko fii ci parrainage mhm. kon jox nañ ko fii ci parrainage ba ñii di wuti parrain doo dégg numéro 2 mhm. wala plan B bu Pastef mhm. wala boo koy dégg da koy dégg ci leneen mais ñàkk ko jox moo tax ñu toog ba xam ne ñii ñu ngi leen di tardeel ñu jël seen responsabilité jël Bassirou Diomaye Faye euh, samp ko def ko plan B jël Bassirou Diomaye Faye mais dafa mel am na plan C aussi parce que ñu ngi gis euh, annonce bi nga xamante ni moom mooy euh, monsieur Cheikh Tidiane Dièye plan B plan C bi dama leen wax dama ci wax. Mhm. ndax bokkuma cellule communication Pastef bokkuma Pastef. Mhm. bés bu ñu jëlee seen responsabilité ne kii la ñu jël. Mhm. ñu toog débatté ci. plan Z ak plan F. ñoom bés bu ñu génnee ne am nañu plan C mu mun ci wax. mais tant que ñoom waxaguñu ci seen gémmiñ. wala ñu wax seen communication taxaw ne am nañu plan C. damay jàpp ne parce que Diomaye mooy seen plan B ba may gis leneen. du ma plan C boobu. waxuma la gëw ma ko dama si mënut tawax wax parce que wóoru ma. Hmm. waaw mais mais mais mais mais mais gis nañu moom seeti na ki ne moom mooy euh, moom mooy Ousmane Sonko euh, si bu ñu gisee par par rapport ak article bi ñu ko bindee xeetu ndigal lay waxee que ni seeti Ousmane Sonko. ci bés yu ñu génn. am ko seetuñu Ousmane hmm. Hmm. si seetu Ousmane Sonko. mi na Ousmane Sonko. seeti Ousmane Sonko dafa am relation yu ngeen seet nga war ko seeti. am na ñu seetiwul Ousmane Sonko te ñoom dañoo war a seeti Ousmane Sonko. waaw wala déet. dama ne am na ñoo xam ne ci jamono ji jii. Mm-hmm. waroon nañoo ut këyit dem seetu Ousmane Sonko. waaw ci jamono bi mu nekk te ñu ko. bari na doo fi nekk di lim ki war a xam dem. Mm-hmm. xam nga ko waxee. Eh? waxuma kenn xam nga ma. Barthélémy Dias ma amee lu may wax Barthélémy Dias fi ma toog wax ko keroog. ne ko damay laaj dama su ma amee lu may wax Barthélémy Dias. Mm-hmm. ma toog ni keroog jàkkaarloo ak yow ne la ne ko Barthélémy Dias lii ak lii nga def waxoo ko def. fi laay toogee wax ko dama ne la. ku wéet xam sa borom. am na ñu waxoon seeti Ousmane Sonko seeti wuñ ko. Hmm. seeti Ousmane Sonko ne veut pas dire nekk plan C plan hmm. ko war a seet dem ko. Hmm. li ngeen tënk nag li di waxtaan nag. yéen a ko xam. lan ca war a génnee tam boo génnee loolu ngay génnee. Habib Sy n'est-ce pas mu wax dafa dafa wax li mu li mu gis. Euh, Guy Marius Sagna seeti wu Ousmane Sonko. seeti na ko waaw. keneen ak keneen seeti wu Ousmane Sonko. Dame Mbodj demul ci Ousmane mi ngi noonu anyway après keneen ak keneen dem seeti ko. waay moom mi nga xamante ni euh, moom moo jiite plateforme bii di euh, Sénégal bi ñu bëgg. voilà moom dafa seetoon Ousmane Sonko comme ni ma ko waxee lundi bi la euh, démarre li nga xamante ni mooy collecte de parrainage am mais ngoone wala sinon Albra mu am ñu ñëwaat si ngoone Albra est-ce que gëm na ni Pastef dafa war a am plan plan C est-ce que daf ko war a am. gis nga booy dem ci ci guerre. Mhm. di di guerre ak koo xam ne nii. Mhm. dafa bëri dafa bëri ay galgal. Mhm. da ngay nëbbu say affaire mhm. ndax nag ñu bëri xamuñ woon ne tey mhm. euh, Pastef mhm. Bassirou Diomaye lay teg ñu ngi doon xalaat Guy Marius Sagna wala Moussa Balla Fofana ku nekk daal mu ngi doon xalaat tey ñoom bu ñu demee ba indi euh, Bassirou am na leneen loo xam ni teg nañ ko pour contrecarrer état bu Sénégal ñoom euh, état bi lu ñuy def lu nekk pour teg fi Amadou Ba ñoom itam na ngay def seen kémtulaay kattan ba teg seen mbër itam comprendre nga Euh, docteur Cheikh Tidiane Dieye. Euh, Guy Marius Sagna. Mm-hmm. Abbas Fall. Mm-hmm. Euh, nu mu tuddati Birame Souley. Mm-hmm. ñoom ñëpp am nañu droit nekk candidat. comprendre nga ci parrainage citoyen bi. ce ñoom kenn la ñuy yewal kenn la ñuy jiital kenn mooy seen plan mi Sonko dañ koy wax à chaque fois. keneen ku ñu indiwaat ku nekk rek. stratégie la. <coughs> <coughs> <coughs> ngeen baal ma la. nga ni Ngone eggale sa waay ji ba jàmm la ak Ngone Ngone <laughs> est-ce que ni mm. euh, Pastef euh, Bassirou Diomaye Faye mu ngi si loxo yoon moom euh, yoon may na ko moment bi mu wax ak yéen ci loxo yoon waaye may na ko dafa war a leeral ne waaw mu ngi ci loxo yoon waaye taxul mu mm-hmm. bañ a déposé li nga xam ne yoon may na ko mu daal di bokk si élection présidentielle waaw fi ñu toll nii mm-hmm. naam mu ngi ci loxo yoon leer na léegi yow est-ce que jàpp nga ne Pastef dafa war am plan en cas wala déet. xam nga Pastef ay nit yu xarañ ñoo fa nekk. Mm-hmm. soxlaw ñu man sama idée. Mm-hmm. wala sama ayib wax ne da ngeen di am plan B. Mm-hmm. plan C wala plan Z. Mm-hmm. ñoom ñooy xool bu mu leen neexee. Bassirou Diomaye Faye xaaral leen ko woon. dañ ko doon jot mais kenn ko. ba ñu xaaree le moment opportun pour jël ko teg ko. dañu ko jël teg ko. dama ngay doxal. boo génnee ci mbedd bi xam ne ña ngay doxal. xale jigéen ñoom ña leen di pare ne ña ngay sañse di di pare ne di jot ay xaalis. xeexuñu xuloowuñu sànnantewuñu ay chaise. mu leer. par contre ay sauvage ñu ngi koy def. léegi yow nga ne ndax dañoo war am beneen plan C ñoom ñooy xool ndax dañuy am plan C wala plan B Mm-hmm. xam nga Ousmane Sonko kay ma wax la dara. Mm-hmm. soo ko waxee ñu ne da nga kaa faral wala da nga koo. Mm-hmm. leneen ak leneen sax dañ ko ci wax. yàlla moo ko fi teg. li mu ko may. mayu la ko mayu ma ko mayu ko alburax moom la ko may. soo ci bëggee am jàmm da nga koy nangul li ko yàlla may. nga tëdd nga nelaw. mais tant que yaa ngi koy dénigré war nga naan kii li ko yàlla may ak la mu kii wax dafa net fitna ci coono ngay nekk yow mi koy wax. sénégalais ñoo bëgg changement.

te loolu ci loxo Ousmane Sonko la ko yàlla def ñi gindeeku ci politique ñu bari ci ay ndaw. Hmm. moom moo ubbi seen gët ñu mën a xool. moom moo ubbi seen bët ñu mën a xam lan ak lan la ñuy xam. fen yi nga xam ne ñenn dañ daan ñëw di ko fen wala ñu koy wax loo xam ne du dëgg. moom mu ñëw wax leen li nga xam ne moom mooy dëgg. Hmm. waaye léegi kooku ubbiwul sa bët. Hmm. wala ko li li mu ko jaral boo gisee maanaam jaral na ko te mën na ko wane par contre yeneen opposition yi nga xam ne dañ ko dañ doon dem ci dialogue dañ doon xaar ba guddi ñuy dem ci kër président Macky Sall wala dañuy xool euh, ci chaise yi nga nekk su chaise éjectable la ñooñ dañoo jaay seen ngor ñëw ànd ak moom mm-hmm. moom mu continuer ñu tëj ay ndawam di ko tëj di ko xoqatal kon kooku jaral na ko mm-hmm. waaw léegi lan nga bëgg mais c'est que c'est mbir bi lu tax may may insisté ci français bi mooy xam nga Bassirou Diomaye man français mënuma cee wax maanaam sa xalaat laa bëgg am non en fait xaaral ma xam nga yow nit ñi dañ lay bàyyi xel xel ba da xam ne sa yoon nekk xaaral ma la waxuma la nga affirmé waxuma la nga du ma confirmé du ma affirmé français bés bu Pastef toogee mm-hmm. wala ma dégg ci ñi nga xam ne ci ñoom lañu jëlee xibaar mm-hmm. toog nañ wax ci plan C mm-hmm. ni ma waxee ci plan bi laay waxee ci plan B te kaay ma wax la lu ndaw. Hmm. muy plan A muy plan B muy plan Z. Hmm. xam nga tey état mun na lu ne. Hmm. keneen ak keneen mun na lu ne. même Bassirou Diomaye Faye mi koy jéem sax di ko pousse di ko def leneen. su yàlla waxee ne Ousmane Sonko moo fi parce que ba tey Ousmane Sonko waxaguñ ne bokkatul. waxatuñ ne dañoo teg Bassirou Diomaye Faye dañ ko dindi. ba tey mu ngi ci biir. ñu ngi def nag ay procédure dem tribunal. buñ ko retardé ak yooyu mais mu ngi dem. ndox naa la fii ne la yow tey. bu la euh, bu ñu toogoon toog ba ci dem ci càppaandaw ko Ousmane Sonko daal ne voté leen Ouzin yow tekki nga. Mm-hmm. malgré du ko def. Ah, na ça ne veut pas dire que tamit euh, buñ ma ça ne veut pas dire leen Ouzin xam nga du ko def. Mm-hmm. mais exemple la jox. Mm-hmm. ci exemple nag ci ngay. xam naa mais bu nee Bassirou Diomaye Faye voté leen ko Sénégalais yi mënuñu voté Bassirou Diomaye Faye waaw mais ça ne veut pas ma la loolu de dama ne la man xam nga lan la xam nga loolu sa xalaat la man sama xalaat mooy. Hmm. tey bu Ousmane hmm. mu hmm. d' accord mais xam nga Bassirou Diomaye Faye commencement bi dañu ko doon toppee wàllu diffamation mais dañu dem ba biir ñu gis am na yeneen charge yu ko tegee association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste yooyu dossier fi mu toll nii moo tax ma ni est parenthèse boobu tamit dañu ko ubbi en cas dañu miser exclusivement ci Bassirou Diomaye Faye. xam nga daal leen daloon ci Sonko di leen dal. non da nga doo ci wax ay ay plan C. ci li nga wax waxuma plan de. Mm. ci plan B bi nga wax muy Bassirou Diomaye Faye. Mm. xam nga da ngaa ci li nga wax. ñoom ba ñuy tànn. Hmm. candidature Bassirou jomaay fay hmm. ñoom dañu am ay juriste. Hmm. am ay avocat am ñeneen ñeneen ñeneen ñoo xam ne ay boroom xam-xam lañu am ay professeur am ku yow seen régula euh, régularisation la xaw ma muy nguur a donc ñoom du ñu tànn Bassirou Diomaye fay ci ay naqasa xandang ak ay dof-doflu. dañ xool ba xam kii. Hmm. dañu koy toppee lii la. Hmm. lii ak lii moo ko ci mën a fekk ndax mën na nekk candidat ñu mën ko jël. nekkuñu hmm. dañu toog comme ñun wala comme yow duñu xalaat de. dañoo tànn ba pare doog ko jël. kon ay lii lañ ko doon toppee ak lee lañ ko toppee bu Ousmane Sonko ne voté leen Bassirou Diomaye Faye Cap Manuel lay jógee encore une fois dem palais. d'accord euh, voilà alhamdulilah loo si dolli. si. Euh, Pape Moussa dafa toog fii démb. na Bassirou